ëpp wax nga ko ndax it dafa am loo xam ni suñu responsabilité la lu waral site à chaque fois à chaque fois bu dara xewee ñuy ñëw euh, yëkkati suñu micro jox la ko c'est juste que da nga bokk si ñi nga xamee ni non seulement ay jàngalekat lañu waaye tamit askan wi dañuy yàkkamti euh, teewlu li nga xam ne mooy say kaddu je pense que c'est pas évident quand même si yu mel ni daje ci benn nit euh, ku ko mënoon am waaye li la ko may mooy ñu bari ci askan wi dañu am ci yow choix waaye tamit di déglu kaddu yi nga ni yaa ngi koy def jëmale ko ci diina alors mu am loo xam ni xewoon na bi ñuy mujj am ak yow jotaay ay kaddu yoo xam ni yëkkati woon nga koo jëmale ko ci jàngale certainement ay nit ñoo xam ni oh. ñu mal intentionné no non non dafa jaadu ñu leeral ko yaa oustaz parce que xam nga lu tax. Amadou Amadou Amadou ay nit sunu waxtaanee dara la ñu tëral nañ topp loola gis nga man ci sama biir waxtaan bëgg Bàmba lépp a leer mm-hmm. lu xew gis nga man déet déet baa ko moo def li mu bëgg a def non bàyyi ko mu def li muy def yow itam ah. dugalal dama leen di wax leen hmm. su ngeen bëggatee ñëw leen lu ma waxati teg leen nuñ ko gisee baax na hmm. man jàngalekat laa du ma ustaaz sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yónni bi mu yegsee ñu ne ko loo doon mu ne bu mualliman dañ maa yónni pour ma xamle mm-hmm. man xamlekat laa te it kaay moo wax la maam Babacar Si su la daan bind lettre day bind ci adresse bi ne min ubaydillahi et puis ba green si sago baax na de jaamu yàlla bu xeebu bi sago baax na de nite baax na de dal baax na alors mais mais je pense que yaa oustaz min ubaydillaahi hmm. abi bakrin si hmm. maa ngi jógee ci as njaamu si yàlla hmm. lettre baa ngi jógee ci as njaamu si yàlla bu ñuy wax Babacar baax na ki war a yéeg yéeg na mooy yàlla kudul yàlla jaam nga point lu ngeen bëggati ñëw leen mm-hmm. lu ngeen ma laaj su ma ko xamee wax leen mm-hmm. su ma leen ko waxee teg leen du ma leeral du ma weddi du ma miim du ma sóoraale kenn man jaamu yàlla buy jàngaleel yàlla laa yóbbante yonent bi laay jottali du ma ci soor kenn ne naa la ay doomu yonent bi yu góor gis nga leen ñëpp faatu nañ avant ñu yónni Muhammad suñ fekkee woon dundu baayam ak yonent bi yii ñu ko xas nu ñuy def kon adduna tukki yàlla faxas ñëpp faxas maamam abdu tëlib faxas baayam aboo taalib faxas xadijatu faxas ñëpp ne ko eh maa la bind maa la moom maa la jàngal maa la yónni demal lu xew baax na damm nañ ba ñëw toj nañ yeelam xamloo nañ ko c'est ça teg leen. lu ma wax rek alors ñuy da ñaan mbokk yi rek c'est juste message bi moo doon nañuy bàyyi xel souvent li. teg leen ko li may wax lu wér la. lu am société man awma ay wiir yeeg lu ma nit jox soxlawu dara. Mhm. yàlla rek laa soxla. xalifa nit ku jël jigéen wutal ko appartement. te ndaw see ko koy demandé seet fu gën a jekku yóbbu ma almadi wala dëkk sàngam mu luyeel la ko ndaw si ne ko maa yor sama ndey ak sama baay mu dagg saleer jox ko féeteeg moom ci kaw ana yàlla ana malaaka yi kooku koo def su tëddee góor gi dootu xalaat yàlla góor gi bu tëddee moom du xalaat yàlla parce que yàlla nekkul fii yàlla nekkul fii su fa yàlla nekkoon nga xalaat lii moo tax loolu c'est grave te loo ca foraatu soo joxee bon bi ne ko demal marché boo génnee pochette bi rek action xaw ma soo génnee pochette bi ba ni nii rek lemmati xaalis bi action maanaam ni nga ko amee day dikkaat nga jël jox ndaw si eh, mu war a dem marché di bon bi action fa nga ko jëlee dikkaat ndaw si dem marché ñibbisi ne tànt ndugg maa ngi action ni nga ko amee dikkaat mu togg ba pare yàkk nga woo say copine sëy léegi looloo ko tas xarit yu jigéen yi ak seen ndey yi sëy yaay yoonu yaay newu ci lu du defer copine yoonam newu ci sëyu jàmbur lu tax ngay ñemee wax ci jëkkëri jàmbur te moom ñemewu la wax sa jëkkër te sa jëkkër a gën a bon foofu jëkkëram ndax moom jëkkëram ci yàlla lay xëy ci yàlla lay gont suba ngoon yow sa jëkkër ci lu muy xëy ci lan lay gont ngay téléphoné jigéen naan ko yaa ngi dégg sa jëkkër ji man de damaa jooy bay bëgg dee ndax li liñ ko wax yaa mën a fen